mi ngi wéy eh, di yéeg eh, président de la république nag mi ngi def ay pexeem ngir mën a wàccee tension boobile eh, bokk na ci libérer lépp li nga xamante ni moom moo di ay détenus politique nekk ci kaso bi loolee xam naa sax moom la ñuy njëkk moom la ñuy waxtaanee ndax gis nañu tey ji ci alxamis ji bëri na ay détenus yoo xam ne si ni ñu ngi woon ci kaso bi daal dinañu génn ñu man ci lim ku ci mel ne Cheikh Omar Diagne nit dof Jamil Sané nekk maire bu. bu euh, Parcelles Assainies Aliou Sané ki euh, nga xamante moom mooy Karim Xuruma Xaq ak euh, Cheikh Omar Diagne wax naa ko Ibrahima Gueye nay leer ak docteur Diallo ñoom ñëpp Diallo Diop mhm. ñoom ñëpp daal di ñuy génn ci kaso bi ñooñu rek la ñu mën a lim am na ñeneen ñoo xam ne si ni tamit nit dof wax naa ko moom tamit génn na Toussaint Manga moom tamit mu ngi woon ci kaso bi mu mel que ni apaisement bi Macky Sall waxoon ne moom la bëgg laataa ñuy dem dem ci élection yi mi ngi ci euh, dox bu baax a baax am na ñuy xaarandi également la sortie euh, de prison de na Sonko nga xamante ni euh, moom mooy njiital Pastef ki nga xamante ni moom di Bassirou Diomaye fay tamit nekkoon le plan B de Ousmane Sonko mooy mi ngi ci kaso bi ñu ngi xaarandi moom tamit ak génnam ci kaso gi Cheikh Ousmane Touré donc loolu moom mooy information bi nga xamante ni tey moom la ñu gontoo muy Euh, benn euh, libération boo xam ne si nii euh, am na jëm ci détenus politiques yi nga xamante ni jàppoon nañ leen depuis deux mille vingt et un ba léegi donc mu nekk loo xam ne si nii ñëpp applaudir nañu en tout cas que ni Macky mi ngi ci yoonu apaiser li nga xamante ni moom moo di tension politique bi noo ko jàngatee. waaw ni ko sénégalais yëpp gisee ñun ñëpp ñoo defandoo constat bi tey. Mhm. mooy gis nañ benn vague de libération. ci mhm. ñoo xam ne mooy ñu doon woy ay détenus politiques. si muy ay ñegenaale wu Ousmane Sonko. moo xam ñu nekk ci parti am wala ñu nekk ay alliés ànd ak moom. Mhm. ñu gis ni profil yu ute la nit yu ute tamit dat yu leen jàpp. bu vague de libération bi amee rek li sénégalais yëpp. seen xel di dem mooy kon président Macky Sall yéene gi mu waxoon ne dafa am yéene décrisper tension bi. Mm-hmm. wàcce yëf yi mi ngi ci tànk yooyu. lii nag c'est une première bi mooy première acte bi ñu posé. ndax man mm-hmm. démb rek maa ngi wax ni waxi Ousmane Sonko ak Macky Sall. ñu ngi dialogue mm-hmm. yomb na nga wax ko. waaye ba fi ñu toll nii ci terrain bi amul lu ko mun a matérialiser. bët bi ñu doon xoolee nitu Ousmane Sonko yi moom lañ leen di xoole mhm. mooy buñ génnee def caravane wala dara ñu mate ko. Mhm. yaa ngi comprendre. Mhm. buñ génnee def caravane wala dara ñu mate leen. détenu politique yi ñu ngi ci kaso bi Ousmane Sonko mi ngi ci kaso bi. waaye bi ñi ki tey gis nañ ni les choses commencent à léegi nag jëm fan. ndax dañuy dem ci libération Ousmane Sonko ak l' ensemble des prisonniers politiques. su amee mooy li gën ci réew mi. wala ndax fan lañ jëm façon ñu ngi toog di xaar en tout cas tey bi ma dégloo tey ki nga xam ne mooy Pierre Atepa bi ci RFI hmm. dafa wax ak certitude maanaam koo xam ne li muy wax am na lu mu téye donc da ngay gis ne kon bi muy dem di waxi RFI il était déjà au courant que libération yi dana am hmm. kon ñi ngi gis ni initiative bi amoon digganteem ak Aliou li mi ngi euh, avancé léegi nag ban politiquement ban jàngat nga ciy def hmm. mooy la président mag Sall prépare sa sortie xam nga man daaw avant hmm. ñuy laal dossier Adji Sarr plutôt laa waxoon ni président Macky Sall lim soxla di ko wër ci hmm. troisième mandat ci beneen candidat mi ngi ci loxo Ousmane Sonko hmm. te parmi les profils yu fi nekk Sonko mu ci meilleur profil pour Macky Sall maanaam uutu ko ci ginnaaw Ousmane boo xoolee nit la koo xam ne su la nee gauche la gauche la la preuve loolu moo tax mu àgg ba fii mu toll nii tey. Mhm. su la nee droite la droite la. su fekkee président Macky moom dafa ragal ginnaawam ki koy uut ni muy demee ak yooyu man j'avais dit que Ousmane Sonko mooy ki gën ci moom. Mhm. malheureusement ñu bëri comprendre ñu ko battre nañ carte gi. président teg ay stratégie politique Ousmane teg ay stratégie politique. da ba digg jamono. nu bloqué la candidature de Ousmane fekk na Ousmane boobu mu ngi travaillé ci yeneen candidat hmm. maillage bi jàpp intention de vote bi xa jàpp presque comme ni mu meloon ci moom. Hmm. ba à la veille des élections ki nga xam ne mooy la candidat favori c'était son candidat loolu da ngay gis ne Ousmane dafa gagné boobu te demaguñ ca làmb ja bu ngeen demee ca làmb ji mu gagné foofu tamit président def euh, lucidité wala preuve de stratégie politique donte ni mu ko defee. Mhm. entaché na suñu démocratie entaché na ni euh, nga xam ne mooy le calendrier républicain mais il a su maanaam arrêté bal bi à temps mooy tag lii kat demee waa ji de toute façon nitam mooy gagné. Mhm. bu nitam gagné ñu ngi def passation de serment boo xam Ousmane Sonko mu ngi ci kaso. Mhm. suma poulain laay defal passation de serment euh, nu mu passation de service nit ñi ne fii tension beeg yooyu yëpp. Mhm. bàyyil ma décrisper loolu pare balaa. soo ko dem waaw moo mhm. tax. donc c'est bien réfléchi ah. c'est bien réfléchi. Mhm. Euh, mi ngi ci tànk boobu. léegi nag ban mécanisme lañ doon déglu lañ doon déggoo pour mun ko dérouler mécanisme moo doon poser problème parce que ñu bëri bi ñu nee dialogue. ñu dañu Ousmane Sonko le connaissant du dem ci jaloo mais mun nañu wax ci dégel. digganteem ak Macky ku nekk am loo bàyyi. man dama waxoon ni président Macky Sall su dee bëgg na dégel boobu ñu jëm ci te mu sori foog mu poser ay actes. bokk na ci libérer détenus politiques yi bokk na ci libérer Ousmane Sonko bokk na ci tamit jëm ci maanaam fexe ba yenn entrave yi nga xam ne ñi ngi ñi ngi koy tegal opposition bi. Mm-hmm. bu ñu bëggee am yenn activité ñu teggi ko. mooy comme ay manifester yu mel noonu à partir de ce moment ñu bëri danañ xam ne kii kat. Hmm. dafa bëgg ñu dem ci jàmm. su boobaa nit ñi danañ ko wuy si ci jàmm jëm leen woo léegi nag fan lañ jëm ndax Ousmane Sonko day dem toog ci dialogue ngir ñu d'accord dàq élection yi deux mille deux euh, euh, décembre. Hmm. man gëmuma lool. gëmunu son ne dialogue non gëmuma lool pour maam pour valider report ba décembre. Hmm. man gëmuma lool man chemin bi ma gis man. mooy ñu jëm ci transition boo xam ne non seulement du àgg date boobu. 15 décembre. mais beneen bi le président du ko diriger. transition bi. waaw ñu wut une personnalité neutre ñu organiser élection yoo xam day inclusive comme moom ni mu ko waxee APS ñu dem ci élection que le Sénégal am sortie de crise boo xam ni non seulement tout le monde yi gagne. Mm-hmm. waaye du tax ñu re du tax ñu fàtte benn injustice. Mm-hmm. mooy yaay yu eu moor ci dëkk bi y a eu des blessés y a eu y de dégâts. Mhm. loolu li ma gëm man. mooy mhm. dañ ko war a régler situer les responsabilités. parce que boo jëlee page bu sombre noonu gas ko suul tôt ou tard dina la dina si famille victime yi bu ñu mënta am gain de cause fii mën nañ ko attaque si loolu tôt ou tard luy dabaat réew mi la man dama gëm ne loolu dañ ko war a situer ba nga xam ne ëllëg. Mhm. benn nit dootul ñemeeti def ba bavure yu mel noonu. maintenant. posé na ay acte ñu ngi toog di xool lan moo ci topp. Mm. mais daal man li ma jàpp mooy li président jëf ni tey dafa am lu ko poussé mu def ko mooy benn stratégie politique bu ñu lal boo xam ne mun nga ne politiquement da ko sës doo mur. Mm-hmm. foofu it moom it ba mu fa tollee am na lucidité wu xool ban porte de sortie moo gën pour réew mi. Mm. loolu d' accord maa ngi ñëwaat ci yow euh, Moustapha yow noo jàngatee tey euh, li nga xamante ni euh, am na muy libération yoo xam ne si ni gis nañ ko jëm ci wàllu détenu politique yi muy benn vague boo xam ne si ni vague bu am doole la en tout cas mm-hmm. lim nañ ci ay nit yoo xam ne yàgg nañu toog di leen plaider pour que ñu bàyyi leen ñu ñibbi seen i seen i kër finalement lu ni mel am na li tax ñu am mu am nag comme ni ko Cheikh Ousmane Touré waxee am na ñu si doon wax am na si mën a dox euh, ku ci mel ne euh, Alioune Tine ku ci mel ne Pierre Goudiaby Atepa ñoom ñëpp xam nañ que ni ñu ngi woon ci diggante Macky Sall ak ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Ousmane Sonko euh, noo jàngate tey détenu politique yooyu nga xamante ni tey jii ñibbi nañ ci seen seen njaboot te ñuy séentu en yeneen libération. waaw tout d'abord dama ci damay sant yàlla bu baax. parce que ñi nga xamante ne ñëpp tey ji yàlla dogal na. ñu war a reer ji seen kër. Mhm. gëjoon fa ay weer. Mhm. ñenn ñi juin yenn ñi même bien avant juin. Mhm. Euh, mu metti woon lool seen waa kër doon yóbbu ay añ ñenn ñi doon dem ay visite ñenn ñi sonnoon lool lool lool euh, famille yu bëri am ci ay jafe-jafe. am ñoo xamante ne seen i waajur namm nañ leen euh, yaa ngi